internet yu Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu am nañu mbégte di leen dalal ci entretien exclusif bi ñu réserver tey euh, kii di Adja Nogay Mbuub moom nag conseillère municipale ca euh, commune bu Yoff bi nga xamante ni moom la Abdoulaye Diouf Sarr doon jiite te ñu gën ci élection yi ñu génn nekk responsable euh, benn Bokk Yaakaar ci Yoff également nekk it conseillère en communication Fès tey mooy suñu gan ci 8 mars ñu fas yéene waxtaane nekk ñu jigéen ñi maa ngi lay nuyu soxna si. maa ngi lay fay Ousmane di la gërëm di la sant ci tàmm bi ngi ñu tàmm pour ñu ñëw waxtaane 8 mars euh, muy nag mbégte ak euh, contentement bu mag a mag wax nga dëgg euh, maa nekkoon conseillère municipal ci depuis 2014 Ablaye Diouf Sarr yàlla dogal itam maa ngi resté waat nekk conseil municipal ba léegi ci commune Yoff. ci commune bu Yoff. waaw donte Abdoulaye Diouf Sarr moom nekkatul euh, maire bi. ca ca ca euh, euh, balaa ñoo ñëw ci yooyu ak yeko niru tey bisu jigéen ñi la faaw ñu waxtaanee jigéen ñi. Mm-hmm. ndax da ngeen koy féete ci anam gu ne fàttalikuwaat seen taxawaay ci société bi la ngeen di sàkku it bëgg ñu gën leen ko ñoo ñoŋal ak yeneen yi ko niru ren ngeen am tey bakkan mën koo célébrer comme ni ngeen ko bëggee uuteeg daaw. daaw moom célébration amul woon mhm. ndax 8 mars bu fitna wu la dund noo ko dundee waaw dundoon nañ ko ak tiitaange ndaxte feebar bu dugg ci àdduna bi la mu jaaxaloon ñëpp jaaxal ñu kenn ku ci nekk di xalaat sa bopp ak sa njaboot ak ñi nga xam ne dañu am njaboot ci àll bi muy xalaat bu bu bu ëppandoo ci benn jëmm nit waaye nag Sénégal am ci taxawaay mm. ñu am ci yar ak teggin koo xam ne maye nañ ci déglu ñi nga xam ne ñoom lañ ci waroon a déglu mooy ñi ñu doon wax fi feebar bi toll ak ni feebar bi doon duggee wàññi woon nag activité yu bari ci Sénégal gi demoon ba lu mën a tëj jàkk ba julliwul kooku yaakaar naa fàtt na soxla bu bari moo taxoon daaw ñu célébrer ko rek Euh, ci ñaan yàlla mbas mi jóg fi ak solidarité lañ ko célébrer jàppale nit ñi ci seeni kër à travers l'État ak euh, ñi nga xam ne ñooy bonne volonté yi ñu dimbali néew ci doole yi ak dem nañ sax ba ñi nga xamoon ne mënoon nañu denceel seen bopp tuuti sax toll woon ci jafe-jafe ndax seeni activité doxul woon waaye yàlla dog na dogal na ba ñu am ci ak sant di ci masawu ñi ci ñàkk seen bakkan ndax ay borom xam-xam yu mag dem nañ ci hmm. kilifa yi mag dem nañ ci ku ci mel ni Pape juuf ku ci mel ni ah, am na jigéen ñu ma xam ñu bari ñu ci dem hmm. ah, ci covid bi ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana wi mars ren bi nag hmm. ñu fas yéene ko loolu rek waaw du loolu rek covid waaye du covid rek daawit ci réew maa ngi ci fitna waaw xam nga dossier boo xamante ni mbirum viol lañ lañ ci yëkkati. waaw xam ba tey dossier boobu euh, mooy ni àtteeguñ ko. xam nga lu taxoon Sonko li taxoon bëgguma si woon wax mooy mooy dossier boo xam ne dafa sensible dossier boo xam ne jigéen lañu tooñ dossier boo xam ne jigéen moom lañu wax ne dañu wuññi suturaam dossier boo xam ne jigéen la ñu néewal doole te ñu ne ku ko néewal doole politicien la mu jël kàddu politique yëkkati ko ci kaw askan wi bëgg nërmeel réew mi ci teeyu bakkanam walla neex-neexu bakkanam wala boog ci lu mu war a miim ëllëg ci kanamu justice mu ne naam duma dem ci justice naam duma dem ci fu ñuy wa àttee dëgg waaye damay fexe yëngal réew mi te fekk boobu xale yi xëy na ñu ngi bokkoon ci tëju bi Covid bi jàpp leen ñu bëgg a génn ko ku leen woo ci kaay nga génn kaay nga nga ngay àndal maak yëngal fitnaal réew mi ba réew mi naroon nërmeelu ñun ren tey ñuy dugg ci 8 mars boo xam ne dañuy wax égalité euh, des femmes pour un avenir durable mu am pàcc yoo xam ne dinañ ci génnee li nga xam ne mooy thème bi ëmb loolu ak li ëmb leneen maanaam jigéen ak xam ak yelleefam jigéen wàccuwaayam jigéen ji gën ci réew jigéen ji nga xam ne moom la yàlla yëkkati ne balaa ngay defal bàyyi defal ndey ndey ndey ñetti yoon kon jigéen yàlla yëkkati na ko ba pare loolu ay nit waxuma ñëpp waaye ay nit bëgg leen néewal doole bëgg leen toroxal mu tombeek wi mars bi ñu bëgg ko fete du ñu fàttaliku lu metti hmm. parce que lii metti ci 8 mars bari woon na su ñu xoolee histoire 8 mars rek yaakaar naa ne ci jigéen ci ci ci fipp la la taxaw waaye nag fi ñu tollu xëy na ci parité fi ñu toll ci ax ak yelleef fi ñu toll ci droit de la femme jàpp naa ne jigéen mi ngi jot bakkanam ñi leen ci sant nag parce que loi du ay jigéen rek ñoo ko atte am na ay góor yi nga xam ne taxaw nañu bëgg a jox droit jigéen bëgg a jox àq jigéen bëgg a jox yelleefu ndey ndey nag buñ ko waxee dafa war a am lu bari lu ci tëggu ku jur borom xam-xam yi ku jur kilifa yi ku jur ñi ñuy tarbiyu bu ñu xoolee soxna jaara buso mam kumba laay bu ñu xoolee euh, tey jii mam fawad wele bu ñu xoolee ñu bari ci jigéen ñi sooy joxe référence daanaka Afrique wala Sénégal bari na jigéen yooyu tudd ba ci soxna Xadija ci yonent bi sallallahu alayhi wa yaakaar naa kon jigéen war nañ ko jox palaasam bi mu moom ci société bi. boo jëlee kaa Sonko Adji Sarr gaawtu rek lépp lu baax nga sottil ko aji ñi dañ ko néewal doole dañ ko buñu te ba léegi ñi ko war a wax waxuñu ko doo gaaw trop ci tooñ. xam nga bu mbooloo jógee ne waa ji deful dara waa mbooloo jigéen war naw jóg tamit ne ndaw si deful dara ba keroog àttet am loolu moo tax ñu bëgg justice am. Hmm. parce que dafa am ñu jógoon bëgg nërmeel réew mi ne waa ji deful dara. waaye ñun jigéen génn ba léegi yor suñu ay palaat def concert de bool pour taxaw ne ndaw si deful dara dañu jox suñu dëkk justice gëddëm am yaakaar ci moom jàpp ne donte Adji Sarr nekkul ci dëgg nañ ko àtte ci yoon donte ki ko def ku góor ki nekkul ci dëgg nañ ko àtte ci yoon moo tax daal jigéen nañ ko jox wàllam hmm. euh, euh, kon ci selebration bi faw ngeen génne yooyu yëpp muy ay frustration ay gàllankoor ay mettital ay jafe-jafe at bu nekk ngeen indi teg ko ci lan mooy def particularité ren pour ngeen yëg ni désormais ñu ngi prendre en compte jigéen ñeeg li ñuy seeni aspiration pour ñu taxaw ci li koy saafara. waaw ci mét ñun ñu nangu xam nga li waral li gën a doy waar mooy jël benn jour rek nga jox ko jigéen. Hmm. nga jël benn jour nga jox ko jigéen ne danga koy célébrer na booy célébrer la femme. ñu ne jour boobu góor gi mooy togg jour boobu góor bi mooy fóot jour boobu góor bi mooy paase jour boobu nangam nangam ba boo gisee sax ci snap yi ñuy def da ngay gis lu góor lu waan def mi ngi boot doom mi ngi def pourquoi mu war ko def lu dul benn jour boobu. Mm-hmm. alors ko loolu dafa war a nekk lu quotidien boo gisee environnement wu nit war a mën a cohabitation. Mm. mën a baax c'est parce que. kenn ku ci nekk tu te mets à la de l'autre jigéen bi des fois na jël tête góor. mu yor ko si boppam pour mën ko yërëm pour mën ko teggal ceeno mm. comme góor aussi dafa war a mën a jël des fois xalaatam ne su ma nekkoon jigéen ndax lii may teg kii dinaa ko ko teg ndax lii may jox kii dinaa ko jox ndax lii may def kii dinaa ko ko def su boobaa équilibre dafay am moo tax ñuy wax égalité donc tey fi tey dañuy ñaan parce que noonu la ko xëy na ministre de la femme Ndeye sali Diop Dieng bëggee mm. pour def ko ci esplanade du Euh, Grand Théâtre suba incha allah mais soo xoolee depuis le premier mars ba tey jigéen ñëpp ñi ngi am ay plateau ñi ngi am des rencontres ñi ngi waxtaan waxtaan ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxawee mais non pas parce que dañuy soxla pour maase ak góor hmm. wala tolloog moom i cër wala bokk ak moom ay décision mais équilibre et équité équilibre ak équité kon euh, euh, loolu yëpp dañ dina dina génn comme ni nga ko waxee sànq ci euh, ministre de la femme mi dara célébré ci contexte bi ñu nekk nii mhm. célébration bu ne jaar na fi ay conclusions yu ne ay wax yu ngeen di sàkku jëm ci mais est-ce que vous avez l'impression ci at yi ñu génn que ñu jël en compte préoccupation jigéen ah si si am na avancé yu pourquoi on sent que derrière même répétition la ci non xam nga xam nga la vie est une continuité parce que chaque fois si nit moo tàll di moo tàmm di defaru ak di defaraat mm. boo gisee loi yi ñu koy réformer di ko réformer waat di ko defar di ko refaat parce que contextualisation dafa am solo c'est vrai que mënuñu à chaque instant et toute heure ñu jël benn loi solol ko robb mm. pour mu jot nit mais dafa am yenn loi yoo xam ne dafa war a jot nit yan xam nga jigéen dafa particulier ah, ah fàttali xam nga boo xoolee jigéen bi muy màgg di développé wu nekk nekk njànq comme ni ko mag ñi di waxee eh, euh, pression bi muy dund ci bi muy nekk xale ñu di ko ñu di koy kañ hmm. naan ko jàmbaar nga téel sa bopp fi ba fi nga baax fu baax nga bokk difficulté tentative yi muy dajeel ci buy jàngi ci buy liggéeyi yooyu yëpp mu di ko denc bu wàccee ci këram ma ngay jàng togg ma ngay jàng yàq ma ngay jàng ni ñuy waxee ma ngay jàng ni ñuy toogee ma ngay ma nga ma nga war a fàttaliku diineem loolu yëpp attamte ñu may ko boroom kër mu daj ci lu ci lu ne ci bis bi muy njëkk jël jël sëy ak góor jëkkër ca coono ya muy daj ca diir ba mu ciy jël ëmb ca juróom-ñeenti weer yi ca ba mu koy wasin ca ba muy màgg ca coono yooyu yëpp mu di ko daj te yëgul benn yoon ci digganteem boo xoolee trajectoire jigéen yëpp li ci neex bariwul hmm. kooku nag su fekkante ne saa su ne dañ koy delloo ginnaaw toujours wan ko ne amuloo baat amuloo doole amuloo taxawaay te li baax lépp ci société bi ci sa biir lay génne wala yow yaa koy defar wala sa taxawaay moo koy defar dafay laaj nag ñu am robb buñ lay sonal boo xam ne ku ko gis dinañu xam ne lii jot na sëkk mat na sëkk am na taxawaay bu rafet. ndax ñoom xamee nañ ko ni ñu ko xamee nii ñoom ñëpp. ñoom ñan jigéen ñi parce que dañuy faral di wax ni bukki bu dabee ponkal ci doxin wala waaw xam nga jamono dina dox ba. nit nekk ci boo gisee sociologie ak psychologue yi di wax ne dañuy toog ak doomu aadama boo xam ne mi ngi nangu ne li muy def war a ko woon a def waaye jamono ak xat-xat dana ko ko defloo ak ñàkk ku la soutenir dana la ko defloo moo waral kaawu aji saar bi hmm. bokk na ci lu nuru lu mën a xew na am ñu la ñu la soutenir soutien dafa am solo day équilibrer nit. Hmm. tey bakken soutien moo koy moo koy moo def. dafa mel ni vous avez le sentiment que ni aji soutenir du ko comme ni mu waree. du ma wax ne sutenir ko parce que jigéen ñi am nañu si jóg sutenir ko mais man tey soutien bi may laaj senegal laajuma ko jigéen ñi góor ñi laa koy laaj. góor ñi góor ñi laaj soutien bi. comment. ñoo war a dooleel seen jigéen. dooleel ci lan. ci lépp dooleel ci gunge leen ci jéggal leen ci yërëm leen ci dimbali leen ñun amuñu doole. kon da jàpp ne ñun dañ leen di agressé. du ñëpp dañu leen néewal doole. du ñëpp societé bi la pouvoir wala ñan la. ñu leen desal ginnaaw noonu waaw. xam nga. doo mën a joxoñ baaraam mais su ma la nee góor ñi rek ëmb na lépp waaw am na kilifa yi ci kër gi am na kilifa yi ci pénc mi bu dee comme ci ñun ñi ñuy wax état république am na it ku ko jiite ndax xam nga xam nga état bi dafa am ay système yu muy teg ñi ngi wax de loi yoo xam ne état bu nekk dafa li may wax rek Sénégal Sénégal la hmm. waaye dafay am ñu koy gouverner mu mel ni am na ay quatre présidents yi fi yi fi jaar loi wu jigéen yàgg na hmm. ci ñu ciy waxtaan dama lay jox rek benn exemple ñun ñu nekk diaspora da war a defal sa doom passeport ñu ne il faut que autorisation parentale nga ñëw ñu ne la il faut que papa ji nga te yaa juróon sa doom ëmb ko wësin ko nàmpal ko yow la njëkk gis te amuloo droit ci moom wala boog responsabilité bu jëm ci lii ngay sàkku du yaay ji mais baay ji la. baay ji la waaw. loolu mun ñu ko déggee noonu waaw. dañ ko war a defaraat ni nga amee droit mën a defal sa doom autorisation parentale yow mi baay war nañ ko may ndey ji mu def ko. est-ce que sore nga ci xam lu waral ñu nangul ko papa ji nangul ñu ko yaay ji. waa xam nga. loo comme ni nga xamee ni boo amee sa doom ngay jigéen dem di déclarer ñu ne la ana baay ji bu dee jigéen rek la. duñ ci taxaw am na lu tax. waaw xam nga loolu yëpp. Ah. d'accord naa ko. Ah. nga jur sa doom ñu ne la ala baay bi. Hmm. xam nga des fois sax dañ lay offensé di nga gis baay bu nanguwul jur doom ji loolu fan nga koy teg doom jooju doo ko wutal baay ñaata ñaata nit ñooy dox ci réew mi tey te amuñu baay te seeni ndey. rus nañ leen wax ne amuñu baay est-ce que loolu loi bi warul soutenir jigéen ñooñu pour dimbali doom yooyu pour suturaal doom yooyu. comment. dégg nga li ma la wax. moo tax ma ne la naka. mooy joxal sa joxal ndaw si mu mën a joxe autorisation parentale diw mooy baay bi nañ ko bind. dama ci gis lu bari yàggul rek toog naa ci ak ay nit daanaka sax keroog euh, tuur naa rangooñ hmm. koo xam ne dem na ba am vingt deux ans mu bëgg carte d'identité mënu koo am parce que xamul papaam loolu metti na de te jigéen xam na kuy kuy bàyyi doomam ak yeneen yu nga xam ne tey suñu bëggee wax ci lu ñu néewal doole jigéen rek bari na wante jàpp naa ne senegal mi ngi am ay avancées yu baree bari yoo xam ne ñu dinañ ko jox jigéen non pas pour mu xeexee ko góor mais pour mu suturaal boppam. Ah, foofu la war a nga wax non pas pour mu xeexee ko góor danga jàpp ni yenn injustice yi ngeen di dund yëpp perception boobu la góor ñi di am moo tax duñ leen jox doole ji ngeen di sàkku. waaw noo xam nga góor moom saa su ne day jàpp ne bu jigéen jekkee gaañ ko da fekk jigéen day suturaal góor ñun sutura rek moo ñu war ku donn soxna jaara wala ku bëgg nuroog soxna jaara sutura rek moo la war. mais ce n'est pas l'impression bi ñuy am bu ñu gisee tey jigéen ñi ak seen seen soif d'émancipation de plus en plus Sénégal da ngay dégg ay féministes la ñuy wax. féminisme liberté. parce que dafa am yu dafa dafa dafa am yu bari yu ñu mënul wax ci sax ci plateau. lan non dafa bari rek. kon seen jàngoro du saafaraw. non docteur yi boo koy nëbb sa jàngoro. kañ ngay dina dina saafaraw. ñi ngi koy def ay mémorandum di ko joxe fi ñu ko war a waxtaane fan non ñu ngi koy waxtaanee. ñu ngi koy waxtaanee ci droit de la femme. ñu ngi koy waxtaanee ci justice. ñu ngi koy waxtaanee fu nekk. am na ay avancé xam nga nee naa la am na tey ñi ngi dem ba. vraiment ñi ngi commencé am parité ñi ngi ciy waxtaan sori dañ ci élection yi passé rek wane na wane na ko ñi ngi commencé di wax euh, nañ def parité am na fi ay temps élection danga daan gis cinq góor benn adjointe wala sax doo ci fekk adjointe da ngay toog da ngay ñëw si ay réunion sax table yëpp nga gis góor ñi jàkkaarloog jigéen ñi lu doy waar dafa pare bu ñu soxlaa décision yëpp dañuy wax jigéen ñi dem leen mobiliser dem leen yi dem leen indi parce que lu budul yéen yéen xale yi du dox. ngeen nangu ko. mais ñu ngi koy xeex. naka ba ci parti mais ba ci parité bi nii mais ñu ñu ngi koy xeex. ñu avancé. non justement même en dehors de loolu. ñu ngi am avancé euh, ngeen bëgg toog rek ba ba ñu bu war a faru ngeen ne waaw góor jigéen nangam non. ce combat là même au sein des partis politiques tey boo xoolee ñi fi téye parti yi gën a am doole jigéen bokku ci si am na jigéen am na am na jigéen am na jigéen jiitewu ko laa bëgg wax xam nga xam nga xam nga euh, jiite parti moom jiite parti moom euh, jamono yi ñu jëm hmm. dina dina bari jigéen ah oui ah, si si jiite réew mi dina am jigéen maanaam jigéen mën na yegg ba jiite réew mi laa maa la wax lu mel ni ci Sénégal gi. dinañ ci doxi barrière boobu noonu mu ngi. Ah barrière ah non ci lañ ci lañ jëm noo parce que xam nga li ko indi. li ko indi mooy. li ko indi mooy euh, xam-xam yow su ma bokk ak yow classe ñu amandoo suñu maitrise amandoo suñu lépp nga jàngi xam-xam ma jàngi xam-xam bu fekkente ne rek dañu am ambition politique ñu daje mais waruñu xool sex mais dañu war a xool lii the brain c'est nag xam nga Sénégal dañu am particularité hmm. ci sunu aada ak sunu religion daanaka soo xoolee diine ñun jigéen toujours ci ginnaaw lay nekk fii Sénégal am na yeneen dëkk jigéen dañ leen di teg ci kanam jootal leen dootal leen bu ñuy dem sax seen jigéen yi dañ leen di teg ci seeni mbagg wala dañ leen di teg ci foo xam ne sax bu ñu yoree yoon fas dañ leen di teg ci kaw fas bi di dox da ngay gis ni ñuy doolelee jigéen mais Sénégal xam nga ñun dañ ñu xaw a dañ xaw a làq làq ñu rek parce que dañu war a am fu ñu yem. dé mais loolu fi leen yemale it am na solo. kër gi uuf njaboot gi yar leen. Mhm. yeete leen toppatoo leen ba ni ñu màggee. loolu la ñu xamoon démb ak barki démb suñu yaay ci loolu la ñu ne. am na jigéen yu ko réussir te yàqalu leen dara. Mhm. seen ascension professionnelle mën nañ ci lim ay jigéen yu bëri. Mhm. maintenant wax ji mooy rupture bi. rupture bi ci cette nouvelle génération bi nga xamante ne ci beneen côté bi rek. <laughs> bu ñu waxee émancipation nangoo ko nag laal su ma waxee nga ne doo ci dugg mooy émancipation mooy mbiru féminisme ab bi jikkoy jàmbur culture jàmbur euh, ba ci même les séjours d'activisme buñ koy. célébré ci réew mi façon bi ñu koy defee mooy façon bi ñu koy importé amuñu suñu dara euh, su may jël ci jigéen ñi amu leen dara ci loo xam te ne maanaam bu ngeen di xeex di ko en avant ngeen jëlee ko ci jikko yi soxna Maam Jaara Buso mu sedd bi ndax bu doon ni ni ngeen koy tuddee ci seen i kàddu noonu ngeen ko jëfee ñortu naa ni li ngeen di sàkku li ngeen di jot de xeex boobu ngeen di wax ni góor ñi dañ leen koy xeex du am de xam nga jàppoo war ngeen koy xool. su ngeen xam nga ñun sa lépp lu ñuy xeex. dañu indi diine ba pare dañ dem jàng ñun boo gisee jotaay yu bari yu ñuy am foo fekkee sunu ay jotaay di fa gis jàngu bi kenn di fa gis benn ustaas di fa gis benn sociologue di fa gis. un technicien ñu ñu waxtaan ba teg dara tënk ko gis nga jamono yi ñii nit ñi di waxtaane naan jigéenu Sénégal dafa dafa xëccu émancipation dañu jël féminisme de trop hmm. déedéet jigéenu Sénégal dafa tarbiyu lu ëpp góor ba sax dafa dafa doy waar hmm. waaw ah, ñun ni ñuy tarbiyoo góor bari na dëkk yoo dem tey nanguwuñu ñeenti jabar wala ñaari jabar. déet du dëkk yee ko ñe nangoo wala ñoo ko ñoo ko <laughs> joxe sànq ci dama ne waaw dama ne bari ñu bari na dëkk yooyu dem. Hmm. nanguwuñ ko mais Sénégal jigéen ñi ñi ngi ko cohabité ñi ngi nangu xam nga yaa ngi wax sànq lu am solo ne mag ñu baax ñi dañ daan jor yor ñeenti jabar wala yor ay jabar hmm. jigéen ñi nangu. Euh, dëkk wala jotaay lu baree bare. Hmm. mais jamono bi contexte yi ñu nekk xam nga ne sunu doom yi ma nag seen papa yi moom ñu baax lañu mais xam nga ne sunu doom yi. Hmm. <laughs> des fois dañuy dugg ci soxna yoo xam ne ak yitte yoo xam ne day jafe lool boo xasee am benn aaw abandonné ko jël ñaareel teg ci yoo xamante ne nii daanaka injustice yi am ci dëkk bi ak yoo xamante ne nii baaxul. kenn ku nekk soo xoolee jabar ni sa yaay nga ko téye wala sa jigéen nga ko téye rek jotaay bi dina nekk mais la question n'est pas si question wu kër yi. Hmm. am na yeneen yu gën a doy waar yoo xam ne dafay xew ci dëkk bi. muy yéen. mais wax naa la ko rek ci di ci violer ay xale yu ndaw violer sa doom di yaa ngi dégg toujours ci média yi barki Dembo Ndiaye rek laay liir koo xam ne doomam bu am quatre ans lan moo waral nit ki war a mën a def loolu. xam nga yooyu yooyu dafa metti jigéen ak fu mu xewee rek yow boo dee ndey da ngay tiit boo yoree njaboot sax te jotaay bi wala ni say doom di tëddee ci jamono bu naqari ci yow sax da ngay tiit donc droit de la femme nañ ko setaat hmm. ba ba sécuriser yenn yi ba góor ñi wàññi seen xadar xam naa nag nañ ñu baal parce que mars bi ñun moom la ñu am pour comme li nga wax ñu génnee revendication yi parce que suñ doole bariwul. d'accord mais est-ce que euh, euh, responsabilité ku ci ëpp ku ci ëpp responsabilité ngir fexe li ngeen di sàkk ngeen jotee ci maa ngi ciy insisté di ko bamtuwaat mais j'ai comme l'impression que fii yaa ngi wax viol <laughs> cette loi yaa ngi tudd soxna si ko porté woon ñu ngi koy fàttaliku ba ca bi mu koy présenter ca palais de la république devant le président de la république mu ko tàccu bénir ko. mu jàll à l'Assemblée nationale ñu jëmmal ko qu'est-ce qui empêche à nos autorités de faire respecter cette loi par rapport ak question bi ñuy wax ni waaw mais moi je pense que la justice mi ngi ciy def lu bari. Ah. mais aussi xam nga socialement ni ñuy dundee. Hmm. nëpp nëppal denc sutura. de féministes yi nee nañ loolu jeex na ci réew mi de. waaw ah bon ñu ngi koy. bëgg loolu la ñuy prôné de. waaw dañ koy ñu ngi koy prôné mooy mooy loolu laay wax xam nga man dama xaw dama xaw a am man bugguma gàcce. mais li ma jaaxal mooy ni oui euh, tudd nga sànq mbiru viol lu leen metti la. te léegi yaa ngi tudd ministre bi ñu dénk wàllu yi bi muy yëkkati loi bi dem ba ca euh, euh, palais de la république président Macky Sall di ko bénir mu jàll assemblée nationale loolu jëmm lu des mooy ñu appliquer ko fan la mbir yi di tàggatémbe kilifa yi deful seen liggéey wala lan la. en tout cas lu mu si mën a doon lu ñu jóg ci di taxaw hmm. di fàttali du ñu jóg même bu fekkonte ne tey déggatuñu benn cas de viol ci dëkk bi dinañu continue di alerter dinañu continue di fàttali li English naan reminder hmm. rawatina nag bi nga xamee ne ba léegi cas yi mi ngi am et nag ñu ngi ñaan hmm. famille yi bàyyi nëpp nëppal bi ak arrangement yi. loolu jeex na de ak féministes yi nee nañ loolu moom jeex na. waaye ñu ngi koy xeex mais xam nga xeex boo xam ne euh, am na loo xam ne day agsi sa loxo nga am pouvoiru xeex ko am na loo xam ne fi muy xewee fa lañ koy nëpp nëppalee bàyyi mu sedd boo ci jotewul doo ko mën a xeex. Mm. événement dina am ba après la ci féministes yi di jot di doo ko mën a taxaw mais en tout état de cause. ñu ngi ñaan loolu ñu arrêté ko balaa ñuy egg ci gàcceel famille ci gàcceel famille wala gàcceel mbokk yi d'accord fi ma bëgg a jeexale yow mooy euh, femme et politique également parce que mun ñu ko ñàkk bañ a wax euh, yéen bu dee 8 mars moom mun ngeen a wane ni yéen jigéen da ngeen a boole da ngeen solidaire local yi ñu génn boo jëlee département bu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr nga doon soutenir. waaw parallèlement on a vu candidature Soham El Wardini nuñ mën a expliquer loolu. jigéen ñi daal bu 8 mars jotee ñu ànd bu jeexee mën nañoo ànd ak góor ñi même bu jigéen di wooteewoo fee ne mën naa soppi ñu ne ko déedéet te pourtant soo am El Wardini say candidature am kenn mënul natable ni borom xam-xam la am na ay jéego yu ñu def ci ville de Dakar lu mën a justifier loolu. parce que dañu bokkul parti bokkuñu gëm-gëm bokkuñu gis-gis par contre quand on parle de la femme ñoo bokk yëg-yëg. ah xam nga jigéen. ak moroomu jigéenam ñoo bokk yëg-yëg politique ay xalaat la dafa am fu ñuy converger am fu ñu dul converger ñun dañu bokk ci Benno Bokk Yaakaar bokk ci sax parti bu ñu wax APR moom mu bokk ci parti socialist demal boppam demal boppam ñu ngi laaj lu tax waa parti socialiste ñoom ñi bokk benn bokk yaakaar lu tax waxuñu soam mu ñëw biir. benn bokk AFP AFP. AFP du moins moom ñoom la ñuy laaj lu tax waxuñu soam mu ñëw fekk si benn bokk yaakaar. lu ngeen ci dox yee ndax dox ngeen di dara en tant que jigéen. waa en tant que on vous sent plus. Euh, on a même pas l'impression que ni bu ñuy wax bu ñuy xalaat dauphinat wu sax président Macky Sall ba ñuy xalaat poste de premier ministre. góor ñi sax la ñuy gën a agité que jigéen ñi dafa mel ni amatu leen ay ambition wala loolu nga yaakaar de ah, est-ce que xalaat yaakaar ne man dama am ambition wu nekk premier ministre ah oui ah, waaw xanaa du xanaa du xanaa liggéey rek ak defar réew mi pourquoi ngay jàpp ngay jàpp xam nga soam daf ñu gën a dafa yoroon dañ ko dénkoon euh, mairie dakaar rek ñu jàpp ne ku gën a visible gën a porté rek moom la ñuy war a yaakaar mu nekk premier ministre mm. oui mais da nga soutenir mais waxtaan nañu ak moom. oui mais da nga soutenir Abdoulaye Diouf Sarr. ah non alors que alors ko soutenir mënoon nga samp sa dënd wala nga laaj mais pourquoi pas man. non no non xam nga bi may ànd ak moom 2014 muy gagné yof hmm. boobu metti woon na de 2013 2014 metti woon na trop ñu soutenir ko jàppale ko mu gagné 2014 pendant que boobu Dakar. xaar kenn gañewul ci APR il était le seul donc suñu demee suñu mandature 2014 mu laajaat bëgg est-ce que dina cohérent ñun ñi nekkoon ak moom jàppale ko ñu ñëw taxawaat teg suñu ndënd jàkkaarloog moom. d'accord euh, bu dee législative yi ban schéma lay. def ci laaj ndax loolu loolu. waaw naan d'accord da ngay ci tot moo tax ma ne la bu fekkee dañuy dem ci schéma u législative yi boobaa lan lay doon cëru jigéen ñi. ñoo cere jigéen ñi góor du fa toog dinañ ko laaj bu baax a baax parité ci assemblée bi dañ koy laaj bu baax a baax ñu jox ñu suñu gëdd jox ñu suñu àq jox ñu suñu yelleef surtout suñu ay communes yi nga xamante ni dañ fi taxaw surtout département de Dakar bi nga xam ne dañ ci taxaw taxaw ci taxawaay boo xamante ne nii euh, lañuy ñuy waaye yi ñu waaye yëpp yi ñuy wax nii bokk na ci ñu war a jàppale ñu dimbal ñu ñu ñu voté ko assemblée muy jàppale suñu ndaw yi jàppale environnement bi fexe ba dund bi wàññeeku parité bi mën a am. sàmm suñuy jikko sàmm suñuy jikko. kon euh, mbirum góor jigéen yi jëlee ko fi. non mbirum góor jigéen amu fi. ah ah amu fi de. dégg nga liñ ci wax. loi boobu kenn du ko voté ci réew mi. loolu wax nañ ko waxaat ko waxati ko. xanaa kay dafa fekk ni. am na loo xam ne soo toogee ba amatuloo loo xeexee wala loo wax dangay indi loi boobu teg ko. ne nee nañu duñ ko criminaliser. Hmm. loolu la ñuy wax duñ ko criminaliser. ba tax mu war a indi yëngatu ci dëkk bi mais loo xamante ne nii boobu ba tey Sénégal def ci jël position. Obama ñëw na fi wax nañ ko ci jàkka yi wax nañ ko ci jumaa yi wax nañ ko ci assemblée ne duñu ko voté loi boobu duñ ci wax saa yu ñëw duñ ci wax rek yow nga yëkkati ne loi boobu kaay leen wax ci lan ngeen bëgg. lan la ñu bëgg ñoom. ah mais li ñu bëgg ñoom ñoo ko xam te lu ñu leen ko may. d'accord euh, euh, deux mille vingt quatre jege na. waaw. candidature bu jigéen ci benn Bokk Yaakaar. waaw su fekkente ne Macky Sall laajul dina dina du ñàkk est-ce que du ñàkk. foofu ngeen ne. waaw. bu laajul. waaw parce moom kenn xamul lan la ci bëgg def. loolu lu yenu maanaa la loolu. waaye na maanaa parce xam nga. soo seetee normalement dañu ne euh, bu fekkente ne da nga jël présidence bi loi ba nga ko jëlee sept ans yi da nga koy terminer loi bi nga voté en cours dafay nekk deux mandats ci kanam maintenant xëy na moom mën na wax ne duma dem dem leen primaire ñu seet kan la Benno Bokk Yaakaar di jiital primaire ah waaw mën na nekk mën na nekk dafa dul aada ci yéen rek moo tax mu jaaxal ma ah primaire dafa dul parce que maa ngi gis ministre de la jeunesse ci locale yi moom loolu la sàkkoo ne nañ dem ci primaire mu doon lu war a mën a nekk mais kilifa gi dafa ne déglu leen moom mooy tànn waaw xam nga xam nga xam nga xam euh, local ak présidence du benn fi ñu jëm nii hmm. nañ ko déglu rek nee eh, nañ ko déglu nañ ko déglu député de la diaspora lu la la. waaw so fu mu ne nii dakaar laa gën a toog. ah waaw maa ngi Dakar. yaa ngi Dakar Dakar laa laa gën a laa bëgg a gën a xalaat ne dinaa ci dinaa ci dugg. Dakar laa gën a xalaat ne dinaa. ci pour lan nga bëgg a porter plaidoyer wu Ndakaaru ci assemblée. parce que da gis nañu manqué le. non manqué le wuñu sax. du moment que dañu war a renouveler. am na nit ñu bees ñu war a ñëw hmm. te jàpp naa ne maa ngi Sénégal jàpp naa ne sama leadership war na ma may ma mën a taxawal sama askan pour yokk ci lan compris value ah ci lu bare bare yu manqué ah ah ci lu bare bare yoo xam ne communes yi ñu ngi koy waxtaanee ci lu bare bare loo xam ne néeg yi ñu ngi koy waxtaanee ci lu bari réforme yu bari yoo xam ne xëy ni tey bu ñu yeggee assemblée dinañ ko waxtaanee te booy dem da demee kaddu askan wi te boobaa dinañu déglu askan wi xam nga booy dem assemblée ci nit ñi li ñu fàtte demaloo fa sa bopp danga fay dem ngir askan te nag danga war a am taxawaayu askan wi la yónni da nga war a ñeme liñ la yónni mm. ba keroog nga ci am gain de te man dama bokk ci nit ñi nga xam ne mm. suñ ma yónnee dinaa dem te bu mm. ma demee danaa taxaw taxawaay bu dëgër on aura l'occasion ñu xool loolu incha allah euh, dernière question mooy ku la gën a marqué koy bàyyee xel ci célébration 8 mars bi nga jàpp ni ku la marqué la ci jigéen moo xam ci taxawaayam moo xam ci lu mës jëriñ àddina wala lu mënti doon koo xam te daal euh, soit côtoyé nga ko nga xam ko wala euh, nga raconté ñu benn anecdote xëy na bu tax nga ne moom ngay fàttaliku tey man su su may célébrer 8 mars damay xalaat sama yaay parce que jigéen la woon bu jàmbaar jigéen la woon bu ufoon ay doomam jigéen la woon boo xam ne dafa mës a wax doomam bul wax wax kenn ba sëgg dafa mësa a ay jomam ci jom dafa mësa a ay doomam ci ngor dafa mësa a ay doomam ci gëm seen bopp yàlla na ko yàlla xaare àjjana ku dégg may wax dina xam ne man sama taxawaayu yaay rek laa am ba tey fi may wax dama saa mënuma wax tax ma waxuma sama yaay waxoon na ma nàngam daanaka mooy sama université. comme yan passage ñoo la marqué ci ay waxam. wax naa la ne daana wax nit bu mu wéet fenn ba jàpp ne kenn gisu ko daana wax naa nit bu mu ñàkk dara ba tax ñu yàpp ko daan na wax nit ku baax dafay am kóllëre loolu nag ñu ngi ñaan suñ boroom sàmmal ñu loolu ak sëñ Fàllu mi mu bëggoon nga xam ne bu bis bi jotee ñun duñ am dara lu ñuy def lu dul dem tuubaa rek ñaanal ko ci barab ba daal di dellu si waat en tout cas képp ku yaay maa ngi lay sargal di ñaan doom yi mm. ñu téye way jur yi ñu dégluwaat way jur yi ñu delluwaat sàmm jikko yi ñu baal jigéen ñi mm. ñu nawloo leen boo gisee jigéen ci kaar mu taxaw boo toogee jógal boo dajee jigéen ci banque mu ràng soo ko mënee jiital jiital ko soo dajeeg jigéen mu yor lu diis boo ko mënee dimbali dimbali ko soo dajeeg jigéen mu yor portable bul ko këf bul ko néewal doole jigéen mooy ndey dégg naa wax ji mag ñi nee nañu jigéen jigéen waaye damay wax ndey jigéen kon jigéen dafa am solo jigéen mooy ndox fu mu amul baaxul mooy setal mooy defar mooy wëgg mooy raxas mooy lépp kon daal jigéen ñi nañ leen delloowaat seen àq ak seen yelleef te dooleel leen. bonne fête Adja Nogay Mbuub. merci beaucoup Seydina Ousmane maa ngi lay gërëm di la sant di wax ne kontaan nañ bu baax. ci 8 mars bi di ñaan lépp luñ fi bëgg ci jàmm ci réew mi yàlla nañu ko yàlla defal sunu góor ñi ñu ngi leen di ñaanaat rek nañ ñu baal nañ ñu jéggal nañ uuf nañ ñu boot nañ ñu roganti eh, nañ dooleel ñun tamit nañ leen yërëm te d'accord naa ci ñu may leen ngeen takk ay jabar xam naa loolu ci huit mars bi maa ko maye. kon ba déwén sama <laughs>